mbokk yi ku doon laajte ku yàlla may ki yàlla may ngi nii kooku kan la Thierno Malick Sow Thierno Malick Sow lan la ko yàlla may yàlla da ko may ci xam-xam bu jëm ci faj lan lay faj li gën a bon ci feebar yi moom mooy cat da lay jàpp sang sa cat ba mu set wecc ki nga xamante ne si dafa yor boutique di jaay bëgg naa jarle ki bëgg a jarle te bëgg a jarle day dem seeti Thierno Malick Sow mu defaral la bayra bi ñuy wax moom mooy bay bayra njarte dafay gaaw li ngay jaay dafay gaaw képp ku ñëw dina jënd bala moo génn incha allahu rabbi beneen bi ci topp moom mooy li jëm ci wàllu nopp képp koo xamante ne si dañ laa nopp wala ñu nopp sa mbokk gisal Thierno Malick saw nopp ba dañ bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw gaaw ci pàcc bu yomb njëg gu tuuti Thierno Malick Sow bay defal yàlla ndax yàlla suñu borom da ko jox xam-xam boo xamante ne si da ciy jaamu yàlla suñu borom. yéen Modou Modou yi nekk à l'étranger bëgg a ñibbisi Sénégal kay teelee na ñibbisi dem leen seeti Thierno Malick Sow Thierno Malick Sow dana leen ñaanal suñu borom mu yombalal seen kayit ba ngeen mën a dellusi fii ci réew mi bi ci gën a gaaw nag moom mooy yéen sénégalais yi nekk ci fii ci réew mi bëgg a tukki mënu leen a tukki bëgg visa mu te leen dem leen seeti Thierno Malick Sow dina leen ñaanal suñu borom mu defaral leen visa bu gën a gaaw ngeen tukki tekki ñibbi si teral kul ku ngeen bëgg a teral ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Thierno Malick Sow am na benn gàllaaj bu ñuy wax gàllaaju poos gàllaaju poos da koy def sa poos képp koo xamante ne si yow lay fexeel ci kàttanu yàlla ak mbaaxam du jot ca la muy fexe incha allahu rabbi ngeen dem seeti ko ca cité Djily mbay ca booru armeelu Yoff ya incha allahu rabbi voilà yéen ñi nga xamante ne si nag yéen a bëgg a jot Thierno Malick Sow numéro bi nga xamante ne si moom ngeen di composé pour jot Thierno Malick moom mooy 78 186 02 48 78 186 02 48 benn numéro la am Thierno Malick Sow kese moo koy wuyoo su ngeen demee ca moom bu neexee yàlla lépp leen jaaxaloon ci paj wala wopp wala ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne si moom may may moom ñaankat la te yàlla may na ko xam-xam boo xam ne lu mu ñaan yàlla suñu borom mu def ko àgg leen ci Thierno Malick ki gën a noonu gars yi jaa ngeen jëf lépp ma jàppalee la ko. dama bëgg dem seen Pape Maye doo ma àll si te cinq cent francs rek doo ma dimbale rek di ñaan cinq cent dimbale ma rek. Pape Maye cinq cent. <laughs> yow Ousmane da ngaa neex Ousmane da ngaa gis ci man xaalis Ousmane bëgguma sa yii de. mais yow lii question. aju fe dem. ma demande 500. da nga gis ci man xaalis laa lay laaj nga naan ma ay 500. bëgg nga du yomb trop maa ngi nii toog di xaar loo ma jox mooy soo bu ma demee marché nga naan ma ay 500. code fu toll lan code lu muy dox di heure bi. fàttali ma sax xaaral ma xool sama vaisselle yee. waa jànq ndax na tey ji bëgg naa ñu waxtaan maa yow jànq ndaw. waaw ana Ramatoulaye. Ramatoulaye nekk fi. ah. nekk fi mbaa wóor na. si Ramatoulaye nekk muy sàccantu moom daa war a leer lu ba leer. wala dafa leer mais nekk fi. Hmm? nekk fi. waaye nag bëgg naa ñu mm-hmm. nga tey comme sama doom mën na ci kaw di Ramatoulaye. Mm-hmm. bëgg mbir mi bañ a ca kaw. Mm-hmm. ñu yemale ko ci suuf. mais sama digganteeg yow. Hmm. ci suuf la ndax mënta nekk ci kaw. asalaamaaleykum kenn nañu fee. maa ngi ah! fi maa woon ci waaw waaw waaw. Ah, na kii Ramatulaay. Ramatulaay mi ci kaw. Ramatulaay ci kaw. waaw ah, ci kaw. ah man de bi ma ñëw laajte kon ñu ne ma néew fi moo taxal ma ne naa ñëw nii rek seetlu waale fi.

Well, who am I again? I don't know. Oh. dinaa ko wax ba mu nga dem Mali dégg nga waaw boo jógee fii xamante ni toog na waaw ku ci mel ne meroon bi ak sama pël bu saa saa boobu kooku buur sew ñoom yëpp daan ko su ko defee ñu yëgal ko gut ba gut waaw ndax ko du ko ndaw waaw léegi nag bu ko yàlla defee nag su ko yàlla mayee am doom mu tudd ko nag tudd suuf tudd ko yàlla moom ok jërëjëf moom nag seen réseau yi nag moom day jékki-jékki di kamu waaye baax na sax l'essentiel xam nga sama soxla ba pare ah baax na. ko defee su ma jógee fii ñu woo ñoom bàcc see gars yi ci des jóg ñëpp waaw docteur docteur bu fa jëloon sax nday faatu dinaa ko éviter xaw ma borakoo la xaw waaw dinaa ko éviter sax mu ñëw si takk jóge ba ndaw. na lu nar a yéex chaîne bi ba doo ko dagg. dëgg yàlla yàqu na ba pare. ma de mii mu yërëmee ay raqam. Babacar ba. Babacar nu mu yërëmee ay raqam te ak Ramatoulaye sonal ko lool lool dañuy jaay gi waaye ñoom gi ñii fan la ñu jëm. yow Badji lu tax yow yow yow famille boobu yow lu tax ngay wax seen wax wala code moo tax ngay insister. ah moo tax kay te mënoo ma bàyyi nga xam ne Ousmane moom nga xam ne ak Ramatoulaye ñàkk nañ kersa réew nañ xamante nañ àdduna man ñooñu sama wax dama ko waxul xam kan laa naw nga xam lu dee ci kër ga moo ko rey jàmbaaru fàq nga xam ne tey ji man leer na ma tey ji man amul fu mu dugal yaayam yaayam dafa naan ci kër boobu waaye bu dee Ousmane rek mu ñàkk a moom tekkiwul dara démb ak tey ñooñu moom wax say wax merci rek Babacar laa ci rus waaye kon ma ci wax. ah Babacar dina am lu baax mu sa sonn bismillah. ay eh, cause loo am ci dox noonu. waaw lii lan la. bu jooy lan la. déedéet bu jooy problème mu dem bu jooy tamit ah lan la. yaay Ousmane Sow la Babacar. baax na. <laughs> ñu ngi wax naa la guñu lii ñëw baax na. yaay Ousmane kër gi mu bëgg jaay su ko jaayee nan la def. jaay nga ma wax. Babacar li jënd na ba sonn bëgg a jënd kër gi. Ousmane taxaw si suñu kër gi ma. bu jooy bu jooy bu jooy man fàttali naa leen dafa dëgg fa nekk yàlla <laughs> noppi noppi bul tiit noppi noppi moom nasul noccewul lit la huit. noppi borom tamit. noppi waaw noppi waaw noppi waaw noppi noppi noppi waaw noppi noppi ñu ngi solution incha allah solution dina am soobee yàlla waaw noppi noppi nag yow tamit noppi hmm? taw noppi bul jooy boo defee nii rek damay jaaxle hmm? bul jooy. solution dinaa xanaa gëmoo yàlla ñun ay jullit lañ nag. yaay kër gi ku koy jënd mënuñu koo jënd. yaay. yaay yaay Babacar na. sonn na mais yàlla dina ñëw incha allah. dina sonn kay benn loxo ci kër doo sonn. yàlla dina ñëw de waa déglu ma waa ba ma déglu doo mun a xam dangay déglu ma ma mën laa expliquer da ngay déglu. da ngay noppi nag. dangay ngay noppi. waaw bi ñu solution. soo noppee rek solution dina am incha allah noppi waaw noppi chéri noppi sa papa defa dem Chine may ko tuuti mu ñëw incha allah su ñëwee dinañ ci waxtaan Babacar du musa sonn musoo gis koo xam ne day dimbale ndeyam ci àdduna ba pare di sonn ndam rek lay am incha allahu rabbi ndam rek lay am musoo gis kuy sonn ci ndeyam ba pare te du gis résultat mm. noppi rek sa papa léegi mu ñëw bu ñëwee rek ñu waxtaanee ko incha allah amul benn problème noppi. jàmbaar la sa jëkkër la bokk yi ku doon laajte ku yàlla may ki yàlla may ngi nii kooku kan la Thierno Malick Sow saw Malick Sow lan la ko yàlla may yàlla da ko may ci xam-xam bu jëm ci faj lan lay faj li gën a bon ci feebar yi moom mooy cat da lay jàpp sang sa cat ba mu set wecc ki nga xamante ne si dafa yor boutique di jaay bëgg naa jarle ki bëgg a jarle te bëgg a jarle day dem seeti Thierno Malick Sow mu defaral la bayra bi ñuy wax moom mooy bayra njarte dafay gaaw li ngay jaay dafay gaaw képp ku ñëw dina jënd bala moo génn incha allahu rabbi beneen bi ci topp moom mooy li jëm ci wàllu noob képp koo xamante ne si dañ laa noob wala ñu noob sa mbokk gisal Thierno Malick saw noob ba dañ bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw gaaw ci pàcc bu yomb njëg gu tuuti Thierno Malick Sow baay defal yàlla ndax yàlla suñu borom da koo jox xam-xam boo xamante ne si da ciy jaamu yàlla suñu borom. yéen Modou Modou yi nekk à l'étranger bëgg a ñibbisi Sénégal kay teelee na ñibbisi dem leen seeti Thierno Malick Sow Thierno Malick Sow dana leen ñaanal suñu borom mu yombalal seen kayit ba ngeen mën a dellusi fii ci réew mi bi ci gën a gaaw nag moom mooy yéen sénégalais yi nekk ci fii ci réew mi bëgg a tukki mënu leen a tukki bëgg visa mu ta leen dem leen seeti Thierno Malick dina leen ñaanal suñu borom mu defaral leen visa bu gën a gaaw ngeen tukki tekki ñibbi si teral ku ngeen bëgg a teral ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Thierno Malick Sow am na benn gàllaaj bu ñuy wax gàllaaju poos gàllaaju koy def sa poos képp koo xamante ne si yow lay fexeel ci kàttanu yàlla ak maa xam du jot ca la muy fexe incha allahu rabbi ngeen dem seeti ko ca si cité jiili mbay ca booru armée li yoof ya incha allahu rabbi voilà yéen ñi nga xamante ne si nag yéen a bëgg a jot Thierno Malick Sow numéro bi nga xamante ne si moom ngeen di composé pour jot Thierno Malick saw moom mooy 78 186 02 48 78 186 02 48 benn numéro la am Thierno Malick saw kese moo koy wuyoo su ngeen demee ca moom bu neexee yàlla lépp lu leen jaaxaloon ci pàcc wala wopp wala ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne si moom may may moom ñaankat la te yàlla may na ko xam-xam boo xam ne lu mu ñaan yàlla suñu borom mu def ko àgg leen ci Thierno Malick Sow ki gën a noonu gars yi jaa ngeen jëf